commentaire yi commentaire yi nga bëgg bàyyi ñu jàll yi nga bëgg a bloqué yi YouTube di waaye mu jàll yi YouTube di bloqué yi nga bëgg a wala yi nga bëgg a wala yi nga bëgg a approuvé voilà loolu c'est très simple da ngay ñëw ci sa li nga xam ni mooy sa canal nga dem YouTube studio boo duggee YouTube studio nga ñëw comme d'habitude fii paramètre pour paramétrer sa commentaire yi ni nga ko bëggee léegi boo fi ñëwee fii ñu def section communauté moo concerné commentaire yi fi ngay cliquer boo cliquer section communauté gis nga ubbil na la sa commentaire yi fi nga war a paramétrer commentaire lu mu la def ci kaw filtre automatique autom filtre automatisé maanaam fii loo fi def rek day nekk loo xam ni canal bi yëpp lay concerné mu defal la fi ji nga modérateur ajouter un modérateur su fekkee daam ko bëggoo ajouter ku yor canal YouTube nga bëgg ko ajouté fii pour muy mën a dugg si di la defal modération maanaam di xool say commentaire daal moom nga féetale ko loolu mu gérer ko mun nga ko yokk fii voilà lien chaîne mi ngi def copier l'URL de la chaine de l'utilisateur pour le désigner comme modérateur maanaam jëlal euh, lien canalu benn nit boo bëgg a def modérateur nga dugal ko fii enregistré ko mu nekk modérateur fii mu defal la utilisateur approuvé maanaam koo xam ne moom da nga bëgg lu mu commentaire mu jàll mën nga ko dugal fii itam lien chaîne waaw boo defee moom lu mu munti commentaire mu def lien ak lu mu munti def day bàyyi mu jàll parce que yaa ko pour cent fii mu defal la utilisateur masqué képp koo xam ne bëggootoo bëggoo gis ay commentaire am fii nga ñëw nga dugal ko fi waaw par exemple comme kii nii def commentaire nga jël benn nit wax bëggootoo muy def commentaire ci sa kanaal da ngay jël nga nga jël lien kanaalam ci boppam ngay jël nga collé ko fii nga def enregistré boo ko collé fii rek automatiquement mu enregistré wu nii soo paree li ngay def yëpp boo defee enregistré waa yooyu moom dootu mën commenter sa vidéo waa canal boobu dootu ko mën utiliser pour commenter sa vidéo fii mu defal la mot bloqué waaw terme boo xamante ne bëggoo ku ko commenter ci sa vidéo fii ngay ñëw nga bind fi mot clé wala tag bi wala tur bi wala yaa xam daal li nga xam daal yow bëggoo kenn bënd ko sa commentaire fii nga koy bind bu dee yu bëri la nga séparé ko ak ay virgule voilà boo bindee mu enregistré wu jeex na mu enregistré mu enregistré wu automatique ce qui fait moo yooyu yëpp képp ku ko bind ci sa canal. lii nga xamante ni mooy euh, YouTube da koy détecté bloqué commentaire bi waa ci ci canal bi yëpp. fii nag mooy bu fekkee da nga bëgg a lien parce que am na ñoo xam ne dañuy commenté ay vidéo di ci def promotion yeneen affaire moo xam bu nekk site internet moo xam lien affiliation moo xam mu nekk seen lien benn vidéo wala seen lien kanaal mais daal dañuy commenté. di te des fois sax lien yu commentaire yi ñuy defoon lien yi ñuy partagé ci sa suuf vidéo du am benn relation ak vidéo bi nga def par exemple mun nga def vidéo ci benn sujet di wax keneen ñëw di présenter ay affaire yoo xam ni kenn koy faj la wala dara wane ni lien kanalam mi ngi nii wala lien vidéo te du am benn relation ak yow li ngay def léegi man moo tax ma man option bi dama koy coché ci sama vidéo yëpp nga xam ni képp ku commenter sama vidéo soo ci lien commentaire bi YouTube da koy bloqué ba ma gis ko man su ma xoolee jaarul ma approuvé mu dem su ma xoolee jaarul ma ma supprimer ko voilà euh, moo tax dee leen ko kose moo gën bu ko defee kenn parce que sa sa vidéo yi ngay def sa responsabilité yow mi moom canal bi la yaa def vidéo bi nit ñi ñëw di ko seetaan soo bàyyi nit ñi di def ay liens kenn mën na def benn lien ba te liens yi su bëri des fois dafay nekk ay liens yoo xam ne ay sites yuy def arnaque la kenn mën na partager benn euh, lien ci su vidéo nga bàyyi ñiy commentaire sa canal ba la ñi ci abonné cliqué ko dem ci canal boobu ñu arnaqué leen wala dara loolu tam xam nga sa responsabilité da ci joué parce que yaa yaa yaa yaa yaa bàyyi say commentaire lu nit neex mu def ci te du noonu waaw commentaire yi tamit ñu bëri du ñëw di vérifier seen commentaire dañ koy tàyyeel parce que day bëri mais commentaire ci ci ci bëgg a nekk youtubeur tam di vérifier say commentaire ci la bokk voilà di ci comme daal xëy na tam bu am na nu muy demee doo mën a yëpp nga répondre ci wala dara mais sa kéemtulaay kattan ngay lire say commentaires yi nga war a répondre nga répondre yi nga war a aimer nga aimer voilà waaw bu du ñàkk tam peut-être des fois sa temps du la ko may mais loolu dinañ la comprendre mais daal ngay def sa maximum possible boo jógee foofu muy filtre automatisé bi wax nañ leen ko ba mu jeex léegi nga ñëw fii paramètre par défaut paramètre par défaut lan la commentaire sur votre chaîne maanaam sa sa chaîne YouTube bi commentaire yi ciy daw lan nga ci bëgg da ngay autoriser commentaire yëpp ci kaw bu dee da ngay autoriser yëpp comme par défaut man damay autoriser canal commentaire yëpp mais ku nekk nag yaay xool selon thème bi ngay yëngatu ak sujet yi ngay traité ba xam mën nga autoriser ñëpp ñu commentaire am déet voilà deuxième bi mooy vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication maanaam commentaire boo xamante ni YouTube soo sélectionné bii commentaire bu YouTube jàpp ni am na lu ci tegginewul da koy bloqué ba yow nga lire ko soo giseen teggi na na nga autoriser ko mu jàll su teggi wul nga supprimer yaa xam euh, li nga si bëgg a def mu ngi vérifier tous les commentaires avant leur publication maanaam fii boo ko sélectionné bii commentaire yëpp moom xam jaar na yoon ak jaaru yoon yëpp YouTube da leen di bloqué ba yow yaay liir ok mu soog a nekk public commentaire bu nit def sa sa vidéo rek privé lay nekk moom moom mi ko def moo koy mën a gis ak yow mi moom canal bi boo approuvé nag ñëpp soog ko mën gis bu la neexee tam nga def fii suuf am na ñu koy def désactiver les commentaires kenn du mën a commenter sa vidéo voilà lii moog loi COPPA bi ñoom loi COPPA bi soo defee ci euh, c'est fait pour les enfants nga defi ci wii bi say vidéo kenn dootu ko mën a commentaire parce que commentaire yi YouTube da ko dindi ci vidéo pour xale yi boo moo nga def fii ñooyam désactiver les commentaires ñooyam voilà boo ñëwee à droite côté bi mu defal la message dans votre chat en direct voilà maanaam bu fekkee da nga des fois am na ça dépend ci sa canal am mën na la defal fii message si discussion mën na la ko fi defal tam en direct mën na fi bind discussion waaw mais bu mu la si mënuti defal tamit mën nga ko approuver nga def nga def soumettre à examen les messages potentiellement inappropriés avant leur publication mun nga ko coché bu la neex nga bàyyi comme man du ma def direct moo tax mu bàyyi ko nii voilà mais ñiy def direct lii mën na leen intéressé nga coché fii mooy ku commentaire ci booy def direct rek da nga koy lire bu normalee nga bàyyi mu jàll bu normalul nga daal di nga daal di bloqué voilà fii loolu mooy réglage yi nga am na fii ci communauté nii la ñuy réglé fii say commentaire léegi mun nga def après boo amee fa ay nga def enregistré léegi mu des yan commentaire yi nga xam ne am na ci canal bi nga ñëw xool toujours say commentaire pour mën ko xam fii ngay ñëw commentaire boo ñëwee fi commentaire nga cliqué indil na la fi trois groupes la lay indil benn groupe bu njëkk bi mooy commentaire yu normal yi nga xam YouTube bàyyi nañu jàll mooy commentaire yi nga xam ne nekk ci say ñooy nekk fii voilà mën nga liir di eme di euh, euh, nu mu tëddee euh, jox ko benn laay like mën nga tamit nu mu tëddee répondre commentaire xool fii dafay réponse bi nga war a joxe voilà mais li ci am solo li ñuy wax mooy publier commentaire publier mooy commentaire yi nga xam yépp mi ngi ci suuf nekk public ñépp koy gis en cours d'examen mooy commentaire yi nga xam ne YouTube dafa jàpp ni normal luñu mu ñëw ber leen fii pour yow nga xool leen bu ñu normalee nga active bu ñu normalee comment comme kii ma lire par exemple def euh, par exemple euh, xool commentaire am ma gis lien canal la la yow rek def ko fi deful sa commentaire moom lien dafay def promotion kanaalam am ñaaraam mën naa bës fii commentaire bi jàll nekk public ñëpp ñuy nekk ci suuf vidéo ku ñëw gis ko wala ma bës fii ma def supprimer wala ma bës fii ma def signaler waaw ah, par exemple bu dee cas bi fii laay bës parce que bëgguma ko def commentaire def lien vidéo ci sama suuf commentaire nga kii lu mu def j'aime bien ton contenu ta vidéo mais moi j'ai juste un site à te proposer pour gagner de l'argent très facile juste déjà avec inscription tu gagnes vingt cinq dollars et il te propose juste des applications maanaam kii promotion affaire affiliation lay def voilà affiliation lay def promotion sama suuf vidéo léegi ñaaraam su ma neexee ma signaler ko su ma neexee ma supprimer ko voilà léegi ñu xool ma dama xool ma koy xooli ba pare parce que tamit doo ñëw ne def systématique baaxul nga xam abone bu normal la wala déet voilà gis na ji nga kii du abonné bu normal canal bi da nga doon ko ubbi moom pour di def ay promotion affiliation affiliation kon lu may def dama koy bloqué voilà fii ngay drapeau bi ngay ñëw nga cliqué nga bloqué ko ci nga lien bi supprimé wu na kii def lay kii pour ma soutenir en s'abonnant sur ce chaîne sur cette gis nga moom dafay demande pour koo xam ne mën na euh, soutenir ko abone ci li nga xam ne mooy chaîne am voilà xool ko yépp loolu moo tax affaire promotion la ñuy def moo tax YouTube bloqué leen waaw parce que man ko def commentaire ci sujet bi may def wax def solo wala nangam wala poser question YouTube day bàyyi mu jàll mais boo defee commentaire voilà ay vidéo lay def divers voilà moom bëgg ko ñëw abonné ci canal am loolu la def promotion voilà léegi nii daal nga koy toppoo am na nag euh, lenn loo xam ne ñu bëri remarqué nañ ko ci seen canal yi ay commentaires xam ne ay site la yoo xam ne ay canal YouTube yu nekk ay anglais yoo xam ni ah des fois dañuy single sa canal vidéo boo dugal ñu commande ñoo koy njëkk a commandé vidéo te tey dañuy def très cool xaw ma it's very nice nangam nangam ay mu nekk ay canal yoo xam ne spam la ñuy def ñu bëri nag defe ne ay ñuy pirate laa ay affaire non non commentaire kenn mënu si pirate compte kenn waaw boo bëggee xam ni ngay sécuriser sa compte ba kenn du ko mën pirate fekkee sécuriser ko ko bi génn nii suivre ko nga xool lien bi génn noonu soo seetaanee vidéo ba pare ba mu jeex nga ñëwaat cliquer bu ñëwee ba ba ci flèche bi nga cliquer flèche Euh, lien bi génn ci kaw nga cliquer ko dina la ci vidéo bi ñuy sécuriser canal ba kenn du mën a pirater sa canal waaw na wax ni ngay def ba kenn du mën a sa canal mais loolu du ay ñuy def commentaire pirater wuñ canal spam la ñuy def voilà mooy utiliser commentaire yi pour di am ay trafic ci seen ay canal wala ci seen ay vidéo wala ci seen ay lien affiliation voilà bu ko defee moom ku def lien di nga da lay bloquer indi la fii léegi bu ñu mu ñu mun des troisième colonne bi muy spam potentiel voilà yoo xam moom YouTube da ko leer li ay spam la moom daanaka la jàpp parce que lu tax mu jàppee spam parce que abonné bi mu ciy gis waaw parce que waroo dañ ñëw ci commentaire di demandé nit ñi aboneel cliqueel wala cliqueel aboneel email partager subscribe yooyu YouTube automatiquement da da ko jàppe spam puis réduire moom da koy ñëw bloqué ci spam du def sax fii examen xoolal ba xam ne spam la koy yóbbu directement voilà ñetti groupe yi ñooy fam bu defee ne ma la waxee rek yaay xool bu jàpp nga ni lu baax la. kii ji nga euh, ti tabon je m'abonne ji nga loolu la benn ci commentaire aboneel ma abonné voilà xam nga lii affaire affaire affaire commerce la quoi xam mun na nga koo demander lu gën a kii nii pratique nii pour am résultat waaye boo ñëwee rek ci commentaire benn vidéo benn canal nga benn fa ti tabon je m'abonne voilà nit ki mën na la bañ a kii da ngay bind da ngay da da ngay da ngay discuter da ngay dialoguer nga ñëw nga nuyoo nga nuyu ko ne ko par exemple sa canal bi maa ngi koy rafetlu gis naa vidéo yi ngay def am na solo man tam yàgguma ci YouTube mais dama commencé def ay vidéo bëgg ko ma soutenir sa canal bi abonné naa si maa ngi suivre say vidéo man tam maa ngi lay demander nga abonné sama canal pour soutenir ma loolu boo ko defee nit ki bu liiree commentaire bi en général 90 pour cent day abonné ci sa canal parce que da nga kaa wax wax joo xam dafa nite voilà mais ñëw rek ñëw rek posé tu t'abonnes je m'abonne point final loolu ñu super bu ñu ko liiree duñ si am soxla voilà ñu nga xam ko noonu nit maanaam euh, benn affaire mën nga koo demander. nga ñàkk ko wala nga am ko mën naa nekk ci terme yi nga utiliser. léegi ñetti groupe yi mooy yi nga xamante ni moom lañ lay indil fii boo ñëwee commentaire kon wax nañu leen ni nga koy paramétrer boo demee paramètre commentaire yi am sa canal ba pare ni ngay ñëw nga xool filtrer leen yi nga war a bàyyi mu jàll yi nga war a bàyyi mu jàll te loolu am solo la ci canal nag dee leen jël tuuti seen temps di ñëw ci commentaire yi di xool parce que am na ñoo xam ne bu ñu xasee ubbi canal commentaire moom seen yoon nekku si waaw dañuy bàyyi noonu seen yoon nekku si duñ ko lijjanti te loolu du noonu da ngay ñëw ci say commentaire di xool parce que ñi ñëw ci sa vidéo bëgg ko ba ngay commentaire tamit da ngay jël tuuti ci sa temps tamit di ñëw di xool seen i commentaire suñu waxee lu rafet loo xam neex na la nga aimé ñu gis ni ñoom affaire bi neex na la war nga leen liir nga ko neex na la loolu sax te doo bind dara la ngay cliquer rek aimé voilà loolu xam yomb na par exemple fii voilà léegi kii ñëw na commenter defal na ma fii merci beaucoup mon cher frère très intéressant xam nga bind na ko jeex na commentaire mais su ma ñëwee fii ma def lii affaire bi euh, aimé naa ko fii ak këré naa ko léegi moom lii YouTube da koy envoyé ko sa ki ki nga commentaire doon sa commentaire bi ci vidéo Pape Mor bi Pape Mor Lo ko léegi moom en retour ni mu mu defee commentaire nii man commentaire bi neex na parce que def naa benn vidéo moom wane ni lii am na solo xam nga loolu sedd na xool man dam su ma cliquer fii du ma coûter dara zéro franc la lay coûter te moom après dina dina am retour mu dem ci moom ñu wan ko ni. sa euh, commentaire bi kat neex na waa ji loolu en même temps moom it affaire bi neexaat ko moom tamit parce que loolu tam loolu tam dafa mat bàyyi xel voilà ni muy commentaire mu neex soxol yow tam boo <laughs> aimé def ko fii kër moom it bu ko retourné noonu lay neexee ci xolam tam mu nekk réciprocité voilà nit nit def nga vidéo bi gis na ci boppam kontaan na ci delloo na la njukkal bi wan na def na la retour mbégteem yow it nga defaat ko retour bég gim ci bégaat tam bégaan nga ci voilà wàññiwul dalaw kuute dara te lu neex ci xol la voilà kon vidéo bi fii lañ koy euh, yemale euh, doon la wax rek pour commentaire yi lañ lay wax nan lañ doon wane nan lañ koy gérer euh, di la sant ji la gërëm ci seetaan bi di la wax nag su fekkee ni vidéo bi xaaral ma ñëw di la wax ni vidéo bi nag su fekkee ni jàpp nga ni am na solo par exemple nga doon seetaan vidéo bi nii jàpp ni am na importance bouton sabone bi dina nekk fii suuf vidéo bi waaw nga cliquer si abonné bi bu rouge bi bouton rouge bi feeñ suuf vidéo bi dama nekk sama canal ni moo tax génnul mais yow bu fekkee danga koy seetaan vidéo bii may def nii ngay seetaan nii te fekk abonné ko bouton bu rouge bi na nekk fii ci suuf vidéo bi nga cliquer abonné soo abonné ba pare li ma lay demandé mooy toujours ngay ñëw nga cliquer fii voilà ci logo bi wala fii boo cliquer nga dugg ci canal bi pour mën a seetaan vidéo yi nga xamante ni gis nga nga dugg ci canal bi boo duggee ci canal bi c'est très simple vidéo ngay ñëw voilà boo ñëwee vidéo léegi jeex na nga mën a jël sa temps nag vidéo ñu defoon yëpp nga koy seetaan avant ngay commencer di envoyer ay questions ci whatsapp bi parce lu bëri lu nit ñi di envoyer question ci whatsapp bi yu si bëri ñu si bëri presque cinquante pour cent questions yi dama leen di wax vid demal seetaan vidéo sangam traité naa loolu ci vidéo sangam parce que ñu ci bëri dañuy abonné gis numéro bi ci euh, te ci vidéo bi. commencé la envoyé ay message léegi bëgg liñ bëgg xam ci YouTube yëpp ñu bëgg la ko laaj ci message WhatsApp yi te fekk na yëpp yu si bëri bokk traité naa ko ci ay vidéo vidéo yi nga war a ñëw seetaan di appliqué jeex na boo demee nag seetaan benn vidéo nga am daal jafe-jafe boo ci am wala am loo xam ni wax naa ko yow nga dugg gisoo ko wala comprendre ko nga envoyé message WhatsApp pour ma indi ay éclaircissement waane boo seetaanee benn vidéo bi ma mujjee def rek bu ko seetaan rek automatiquement gis sama numéro rek commencé ma envoyé li nga bëgg xam ci YouTube yëpp nga ma koy envoyé dugg ci canal bi seetaan vidéo ñu defoon ba pare après léegi nag boo amee ay question nga soog a ñëw nag pour WhatsApp WhatsApp ah, ma leen di remercier ci seetaan bi ngeen doon ko doon wax nag vidéo affiliation bii muy blogueur wane woon nañ ñu ñuy créer blog à de zéro léegi mu desoon nag vidéo yi si des pour paramétrage bi ma demandé woon ci vidéo bi bi muy jeex ma demande ci commentaire yi pour. nit ñi wax ma ba xam ma def ko par partie étape par étape ba formation blogueur bi jeex ñu soog a commencé bala ñoo demaat ci produit parce que jël produit moo a yomb wax naa la moo tax nañ ko dañ koy mujjale loolu pour def promotion loolu moo gën a yomb mais plateforme yi nga koy def nag nga war a defar ba mel ni mu war a mel après nag nga dem nag ñu wan la nan ngay tànnee produit yi parce que du da ngay def affiliation da ngay dem rek coppati benn produit na doyut non non non voilà xam nga loolu yomb na de waaye affaire fonctionné wul noonu boo bëggee mu dox doo doo ko defee noonu voilà moo tax vidéo blogueur bi décidé nañ def ko benn vidéo kase incha allah ci semaine bi dina jël sama temps defar won leen blog bi ni ngeen koy defaree étape par étape ba mu egg ce qui bu ko paree nag def ko mu disponible parce que ñi doon voté majorité bi dañ ne nañ ko def benn vidéo moo tax loolu la ñuy def incha allah kon maa ngi leen sant leen gërëm ci bi nga doon seetaan di leen jox daje ci vidéo bii di ñëw incha allah rabbi jërëjëf